ku ma dëgg ma woy nga xam ne géej naa woy lool waaye lii dafa nekk loo xam ne mënuñ koo bañ def waaw ndax ki nga xam ne moom la ñëw feeñal ay liggéeyam kenn la ci ñun di Moussa Afia Ngom ah, jarbaatam bi jaar ay tankam ñu ngi ko ñaanal muy àggale sago àgg foo xam ne nijaayam ji sax àgg fa woon ñuy dégg ko foo xam ne fu ñuy dégg artistes yu mag yi ah yàlla mun na ko détermination and perseverance rek moo la mun la am la loolu kon ñu laa ñaanal yàlla suba ngoon guddee bëccëg di la suñ bunte suñ fi nekkuñ fi yëpp jàppal na ñu yow kontaan nañ jërëjëf Lamine jërëjëf gars yi tàccu leen a baax aji maaka a baax tàccu leen ko please nii rek la demee saa su ne tey lii soo ko déggee sa xel day dem si Moussa Afia Ngom moom ak sa di ko ñaanal suuf sedd ci kawam di nuyu rek euh, bépp média bu fi teew tey Gambian Talents teew nañ ñu ngi leen di jaajëf salaam bitik salaam bitik moo leen ay nuyu askan bi jox ma seen noppa si wàllum téléphone du samson du Nokia Spark xeetam boo xalaat salaam bitik am na ko waaye tablette yaa ngi fa rawta yaa ngi fa déetakaat yaa ngi fa xale yi nag seeni tablette ñu fa xale yi ñu bég la salaam bitik bu ka waaye mag ñi ñu kontaan xaxataay leen ñu dem salaam bitik sa Kairaba Avenue Johnson ma Njaay Kunda bi foofu la gaa yi nekk soo demee si salaam bitik di nga fa fekk téléphone yu baax call leen Abdoulaye Cissé c'est 39 39 939 mbete it ngeen call ko si 50 50 150 nuyul leen ma salaam bitik soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak addina wërngal képp su Pasanix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo Kartong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia. Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics aka tumba barjaye singa galima fa tengara tinaralo tayma fayli bar jaye fay way lenga bar hayatima lenga bar ma xama yoni woon ba daan jël si njaay daana tuma juli njaay magam juli duma doon duma xool daaman yàlla ba mbagandeer si mbaar ilaay si paay li paay koli li laxati si paxati li paxati koli yooy asmaa li njaay kay feli mbar batu ba feli mbar ibi rogorog pero nga jimi ya rasulullah ak sa daya halmay kai ma waila jin ai na ni baro ai silai na ni baro jin ai na ni baro jambiya kai ma waila jin ai na ni baro jambiya kai ma waila jin ai na ni baro kar kai na ni baro jin ai na ni baro ai silai na ni baro jin ai na ni baro ramen kurar kulmeno jin ai na ni baro ai sai murke kura fenna jin ai na ورفنا بليا تتاجن واي بليا تاكا جبلو بنكوجن جبلو بنكوي درت روجن درت روجن اسكوجن انا جيجن اسكو جيجن يوجن انا جيجن يو تنجاجن بيرو بار من جاي تخمر لبخم تي مسورة ولكم إنكم وليا دين جاي نبا كتاب سنة هاي جني سمسم سسباي جزء شوكا لا يتاي بملا موجن قاينا نبارون بلا مشما سرلاجن قاينا نبارون بلا ما كمو موجن me para secar. Yeah. may gori leen ñay basal waxu mbaar diri ñaan may gori leen ñay basal alburi pendaay na leen jay jat jojo borom tan jek ñay basal bu bay reer bu leen ma tàccu naaw naaw lu Bye. Thank you. Tachelem Barbar, Moussa, Afia Junior, Tachelem Barbar. Gagne ok jërë ngeen jëf one more time if you tell.

Wow! thank you thank you check yeah Wow. yes yeah Hello. ça sonne Très bien. Toi tu l'as coco et papou. Très très fort, ça sonne. Mais elle est ma tout-déorée avec sa ngeen may hay ga suma ndaanaan Pape Mboupa si bi woon da gars yi càcc nañu ko Pape Mboupa gars yi baax a baax sunu ndaanaan sunu fierté. salaamaaleykum Bambo. maa ngi nuyu góor di nuyu jigéen. di leen wax ne kontaan naa torop pour teew ci bés bu mel nii jàppale suñ rakka laxami Moussa Ngom Junior tàccu leen Moussa Ngom Junior def na lu am solo ndax cosaan bi dafa dem ba bugg réer te Gambia ci cosaan yiñ dese lii ci la bokka euh, ku ko dundal rek wax dëgg yàlla bokk nga ci ñi dundal cosaani réew mi la xamiñ ngàcce ngaalaama waley koy góor curiyaati kumba yaay ndaat

Indian get. That's gumba ma fay li mbaar ma kum julle yalam maga dem ci mbaar billaay si baay li baay kole laxati si baxati baxati koli koli koli koli koli koli koli koli yeye asamaeli njaay asamaeli njaay amari ngaay feli mbaar ma feli mbaar andi may ñibi roog roog roog roog jali seen yalla jeew sa si beetak nar yaa tak naa mbaar tak ndar yaa tak na mbaar wetele nge yotu sibe tak ndar yaa tak na mbaar yotu sibe la fi muse tak ndar yaa tak na mbaar wetele jan ti ma jillen tak ndar yaa tak na mbaar te ma jillen lañ ma weyoon tak ndar yaa tak na mbaar lañ ma weyoon du ma reeraay tak Maria,